Heavy Mess.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 bàyyee fa ñu nan Katanga bi loolu amee nag ci la ñu informé gendarmerie ñu ñëw def constat ci béréb bi ba ubbi nañ ci ab l'enquête ma ne xaw ma kan moo ko def waaye dana feeñ suñu réew mi nag li ko dal métti na ma ne ak doom ni mu neexee nga atte na jur sa doom sànni ko ci mbalit mbaa nga gas ko suul mbaa nga xoj mu dee mbaa nga sakkal pexe ci moomin boo xam ne innocent la tooñul deful tinul réew mi nag da gis léegi ku foo mu mu neex ko dal di cib jëlee ëmb sippi ko doom ja moo tax ma ne yowmal xiyaam dana metti moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax ñaari xale yu góor yi nag li ñu def ëpp na ndax dañu doon santaas ab jigéen bu am jëkkër ngir tëdd ak moom pëtalaw kenn ki mu ngi wuyoo ci turu CAT jaxate moom daal ab étudiant la ndaw su jigéen si ñu doon santaas te am borom kër mu ngi wuyoo ci turaes mbir mi nag nee ñu nii la demee AS ndaw si dafa indi téléphone am ci étudiant bi ne ko sama téléphone dafa bloqué te bloqueel ma whatsapp bi fekk nag booba l'étudiant bi ab génie la ci wàllum informatique waa ji nag bi ko ndaw si joxe téléphone bi ci la duggee ci biir fooyate ko dal ci gis ay vidéo ndaw si yoo xam ni maara dee taalima subaana ak ay discussion yu doy waar laa wax ay waay ma ne bàyyi leen seen yu bon yi ngeen di def ci seen portable yi portable day réer de naka noonu ci la letti jang bi roccee vidéo di ci santas ndaw si ngir mu jox ko boppam ëpp naa def ay waay nee ñu nag étudiant bi gannaaw ba mu yoree vidéo yi la proposé ndaw si ngir mu jox ko boppam ndaw si lank ba tëdd ci naaj bi ma ne ko waaw góore waay naka noonu ci la étudiant bi daal mere envoyé vidéo beneen xaritam buy woo ci jaata moom mu jël vidéo yi di santas ndaw si ngir mu jox ko boppam ma ne waay ñii moom xanaa danoo feebar ndaw si nag bi mu sonnee ci santage yi ci la déposé plainte am ba fi mu ne ñoom ñaar ñëpp teg nañ leen loxo ba placé leen sous mandat de dépôt le 30 décembre 2021 bi weesu li ñu leen tegee loxo nag mooy li tubaab di tuddee collecte illicite des données a caractère personnel ak diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs ci kanamu yoon nag étudiant bi di CAT jaxate te jëloon vidéo ndaw si nee na ndaw si waxul dëgg moom kay li mu def mooy gannaaw bi mu gisee ne ndaw si day wor jëkkëram dafa jël vidéo yi di ko conseillé ngir mu bàyyi wor gi muy wor jëkkëram ma ne ko nag yow lu si sa yoon waay ma ne ko nag Sénégal léegi loolu bari na fi am jëkkër am far di vidéo sa bopp ay vidéo yi ñaaw di ko envoyé sa borom kër ba noppi di ko envoyé sa far moo tax bu téeree ci internet bi rek jaaf xam bàyyi leen vidéo yu bani ba léegi la Tidjane nee na moom ci boppam moo rocc vidéo ndaw su am jëkkër si ndax dafa gis ne ndaw si daf doon envoyé jëkkëram vidéo yi su ca noppee jël vidéo yooyu envoyé ko faram waay waay waay waay Sénégal yokku tamit teg ci ne li mu na da doon santage ndaw si ngir bëgg a moom enquêteurs yi ñoo ko obligé ngir mu wax ko beneen xarit bi di abe jaata moom it ci kanamu enquêteurs yi nee mësul santage ndaw si ngir tëdd moom moom moom kay li mu def mooy gannaaw bi mu jotee vidéo yi def ko woo taxe ko de njaalookat ay waay ëpp na nag ëpp na waaye ba noppi envoyé ko vidéo yi ay waay bàyyi leen vidéo yu bon yi ngeen di mi di ko bàyyi seen portable yi fu mu ne nag ñoom ñaar yoon mujj na leen a daan ñaari atu kaso yoo xam ne duñ ko tëdd ba noppi confisque seeni téléphone portable waaye ma ne ko noonu la nag nit du yër ndax ku yër rek da nga gis waaye nag réew mi moom fii riir mooy coowal góor jigéen ab loi boo xam ne ay sénégalais ñoo ko tënk yóbbu ko assemblée nationale ngir ñu criminaliser homosexualité ay député lank man nag damaa xamul assemblée bi suñu assemblée la wala assemblée beneenub réew la yow mii li fi ne kenn mënu koo wax mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz